ndàmpaay lu toll ci ñaari téeméeri million euh, ba mu def euh, li nga xam ne euh, ba ki nga xam ne moom la ko seqal di jëwriñ ju ñu denk lépp lu jëm ci wàllum tourisme di mambay ñaw def appel moom nag ni ki démb ci altine bi la yëglu di wax nag dina fa yéenee doox li nga xam ne moo di ay activité am nemmeeku tour bu mu fas yéenee def daal dina cee jaare itam pëtaxlu ngir sàkku ci askan wi ñu dem bindu ji ngir mën a wote ci waaw boo demee boo demee boo demee ci liste yi da nga politique bu mu mën di doon ñu ngi dem di bindu ji même ñi nga xamante ni bii bokkuñu ci benn parti politique. man gis naa ay pères de famille yoo xam ne dañu obligé seeni ay doom primo votant ñu dem bindu ji ci liste électorale yi ndax xëy na daañu am dix huit ans balaa ñuy egg ci élection yi te ñooñu duñu féetewuñu fenn ci wàllu politique nga xam ne si kon sénégalais yi am nañu beneen vision dañ di wax naan sénégalais mooy fal di folli temps wu alternance wu Ablaye la Macky Sall mais di nga parce que Sénégalais yi caaxaanatuñu mais euh, lu jëm ci wàllu Ousmane Sonko coowal Mame Mbaye Niang li damul woon laa fa opposition bi de ñuy coowal aji Sarr problème bii li président Macky Sall ni Sénégal amul détenu politique wala détenu wax sa xalaat Nemekou Tour dafa am ku ko doon coordonné ku tudd fadilu Keita avant loolu sax Fadilou Keita dañu dem Malicounda gars yi màgget seeni i leen gis nga waa affaire il faut ñu bàyyi li ñuy def réew mi kenn moomu ko foog ñu bàyyi nit ñi exprimer seen xalaat dem fu leen neex dañu dem Malicounda booy màgget seen attaqué leen ñu jógee fa ñëw cikki booy cikki yi attaqué leen ñu xeexoo fa am ñu fa ami gaañu gaañu ñu dem tribunal ñu arrêté ñenn ci ñoom ñu def seen prison génnaat Fadilou Keita ci la amee problème mu euh, purement euh, secret muy affaire état ak affaire disparition gendarme yooyu Euh, mu joxe ci xalaatam ci post Facebook am ñu arrêté ko donc ñett yooyu yëpp dajaloo foo aw ñu yuuxu la euh, foo aw ñu tàppas la nga xeex ñu jàpp say garde corps arrêté euh, ñu jël ki doon coordonné nemmeeku tour Fadilou Keita après arrêté ko mënatul continuer donc mais est-ce loolu wax na mën a tax bu fekkee moom projet bi wax ne moom lay moom lay moom lay wan Sénégalais est-ce que gëm na ko est-ce que loolu wax na mën a tax mu taxaw wala déet entre temps ay projet ay procès yu bari ubbiwaat fii ñu yëngalaat fi dossier Adji Sarr face to face Ousmane Sonko Adji Sarr amaat fii après Mame Mbaye Niang tëbaat fi génne fi affaire diffamation loolu gis nga justice bu Sénégal dañu ko respecté dañu respecté suñu ay magistrat mais fokk ñu fàttali leen ni justice yoonu réew la boo xam ni peuple moo tax existence su loi yooyu am donc nañu bàyyi wàlla xel peuple boobu benn magistrat bi na xam ni il fait partie du peuple ci peuple bi la bokk dossier bu amee takkatal ndomba tànk nit tax mu mbubb ci dossier loo xam ni bu fekkoon ne amul takkatal ndomba tànk boobu du ko def justice dafa am nu mu ci war a taxawee bu ñu demee Sénégal nag ba saa boo tuddee justice doonte woon ne benn baat nga ko tudd ñu ni offense boo tuddee police donte woon benn baat nga ko tudd ñu ni offense boo tuddee gendarmerie donte woon benn baat wala njiitu réew mi ñu ni offense. outrage wala outrage. loolu mënut nekk ci réew bu am démocratie. parce que loi bi la def yow magistrat. loi bi la def policier loi bi la def journaliste loi bi la def président. loi boobu moo may sénégalais mu am liberté d'exprimer son opinion. léegi nag yow sa toogaay tax nga bëgg koo xañ xamalal la. mus moo sës ci miir lay doon dalay wokk gis na situation réew mi duñu ko laaj ku dul responsable yi mhm. léegi nag Ousmane Sonko moom wax na ni du nangu ñu teg ko effectivement kon gis na ni gars yi ñu ngi bëgg accaparer waa Sénégal ci saalu wàcc kenn heureusement bi mu ko comprendre li jaadu nag mooy ñu génn opposition bi foog ñu génn opposé wu parce que ñi féete ak nguur gi dañoo fàttali ñoom 2009 2010 2011 dañu doon opposé wu ñu leen di tàccu. dañu doon taxaw ni Abdoulaye Wade lii dox na lii doxul mais jamono ji bu ñuy wax ni réew mi doxul kan la ñuy laaj ay compte ku dul Macky Sall moom dong la ñu am sañ-sañ ni ko réew mi doxul. ba fii ak ki koy remplacé bu ñëwaatee kooku ñu ni ko itam réew mi doxul parce que Macky Sall da doon wax jamonoy Abdoulaye Wade nii réew mi doxul donte wane comptable la ci gestion Abdoulaye waat mais bu ñu xañ Sénégalais yi liberté boobu am réew mënta am ay alternance te musta am fitna nga bëgg kenn du fa wax xalaatam ba ci presse bi saa boo waxee dañ naan kii Pastef la kii gëm sa bopp la kii nangam la gis nga nit ñi ragaluñu leen parce que ñoom moomuñu Sénégal bu ñu bëggoon militer dañuy dem politique yi ba sàmba da cee dem ba ñun ñoo opté ba ñu politique féete population presse bu nangu nag journaliste bu nangu nag ñu lay linge tax nga ngay xof ça n'engage que toi yow danga am benn sas ak peuple bi di ko dénoncer ay jafe-jafeem di ko waxal liy metti te bañ a bokk ci benn obédience libre pour wax sa xalaat mais tey ñi fi ak nguur devoir opposition bi nañu génn opposé wu tey joytu laale sénégalais seen i jafe-jafe sénégalais sonn nañu a ah, càlla gis na ci korité gii nii dañoo xëy kenn amul ganaar et pourtant bi ko tegi passé ginaar dafa lab quel paradoxal <laughs> dañu xëy amuñu ganaar mm-hmm. le lendemain korité ginaar lab parce que ñi am ginaar amuñu sax accès ci marché bi pour mën koo jaay parce que ñi am ginaar dañ leen sax utal limite parce que liñ doon sànq ci wàllu économie importance digitale mm-hmm. kan ñi am ginaar sax jàppandalu ñu leen ci wàllu avancement ñu mën a digitaliser seen ay marchandises pour nit ñi am ci accès wala sax bu ñu ko defee ñenn ñi itam amuñu accès ci internet pour mën a am accès ci jënd ginaar yooyu donte woon ne Sénégal def na ay jéego ci wàllu vente en ligne malheureusement et pourtant état dafa war a veiller ci yooyu mais état boo xam ne politique saalu cekkeen rek toujours ak jàpp ni di leen dugal kaso ak jàpp ni te kenn du ko wax c'est-à-dire Sénégal am na jotinu politique war nañu bàyyi xel askan bi di joxe seen ay xalaat comme ni ko démocratie maye Sénégal yi. d'accord euh, Birahim euh, Ousmane Sonko bi nga xam ni euh, démb annoncé na ay activités dina ko fas yéene ak nemmeeku tour mu fas yéene def. waaw on est en démocratie. et surtout on est dans un pays libre xam la laay bañ na def nemmeeku tuuram c'est son droit le plus strict. mais bu kenn ñëw après ne ni non dañ maa def lii dañ maa def nangam jëlee ko prétexte politique. am na sañ-sañu def nemmeeku tur comme euh, notre homme politique am na sañ-sañu dem defi li nga xam ne moom mooy liggéeyam mais bu ñu waxee ne la amoo droit bërëb sàngam ba bërëb sàngam ay la yéwén ah, euh, am na loo xamee ni bindal sa kii parce que ce des hommes politiques mm-hmm. yenn saa yi nag wax na ñoom ñëpp a yem de yenn saa ñu profiter ci benn situation mm-hmm. pour bërëxal dara mm-hmm. ñu ne par exemple amoo droit bu jaar fii ak fii parce que dafa am ay travaux nga ne non non euh, Macky Sall nee na naa naa naa bañ a dem nga jël ko def ko prétexte politique non il faut que euh, ñu comme il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure nañu respecter Sénégalais ñoom ñëpp nag du pouvoir comme de l'opposition xam nga respecter Sénégalais yi mooy lan c'est pas parce que yow da ngay def sa nemmeeku tour wala da ngay def sa tournée politique wala da ngay def nangam que man sénégalais bi nga xam ne dama am sañ-sañu dem dox yi samay soxla am sañ-sañu ubbi sama boutique am sañ-sañu teg sama table di jaay ci marché bi nga ne ma nag doo ko fi defee. Hmm. wala yow amoo sañ-sañu romb fa may romb. Hmm. jël ay jaasi wala ay paaka wala ay ay yat di la di la ci dogale. Hmm. que tout se fasse la paix mais surtout. dans la démocratie mais dans le respect des lois et règlements ci ku mën a doon muy politicien beeg muy euh, euh, manifestant bu bokk ci wàllu euh, parti politique c'est leur droit et bon vivement la la démocratie et la La paix. ñu wax ci euh, njiitu réew mi nga xam ni euh, ngir nag euh, wut ku wuutu Idrissa Seck ci bopp conseil économique social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo na daal di tànn moom mi nga xam nag moo fi nekkoon ci ay jamono jëwriñ ju ñu denk lépp lu jëm ci wàllum finance Amadou Ba moom jëwriñ bu